first time since they were granted bail at the High Court, President Barrow made a public statement about the pressure group, Therese Jotner, saying the group that wanted to unseat him after three years are now complaining uh, for the um, 2022 or campaigning rather for the 2021 presidential elections addressing a rally of his national people's party in lamin koto in central river region mr barrow uh, confidentially um, um, candidate for the uh, 2021 presidential election, uh, of course, said, of course, the confidential uh, candidate is him, President Barrow. Let's listen or have more details of that in this report by Aisatu Tamba. President Adam Barrow has made his first public statement on the pressure group three years just a few weeks after eight of its top members were granted bail at the High Court in Banjul. Addressing a recent meeting on his National People's Party NPP at Lamenkoto in Central River Region, Mr. Barro said the group that has been determined to unseat him after three years in office is now campaigning for the 2021 general elections. Three years Jedna Group has been organizing protests in the country asking Mr. Barrow to respect the three-year mandate agreement he made with the coalition 2016 political leaders and step down for a fresh election. On December 16th last year, the pressure group held a successful protest from Stream Corner in Old Joswang to Denton Bridge in Banjul, where they handed their petition to the government spokesperson for onward transmission to the president. But a second protest in January had held a serious confrontation between them and the police intervention unit, in which eight members, including their leaders, were arrested. Four journalists were also arrested, and two radio stations closed in what the government said they were reporting the protest in a way that was inciting violence. kon ako mool wultano i ka faye ka fo na a mu ne mu amoon ñu jóg na ñetti at jot na bari sa ko waaye ma ne ma tontu ko ne nim men kay ko three na ku la at jot na keba do ko ñe ko jaabirooɓe walal saay mu ne am na beneen góor gu ko waxoon ne loolu am na tontu léegi nim men ko three years jot na ku la ne ñetti at jot na e sa faye three years tas na nga ne ko three years tas na <laughs> According to him, no matter how many candidates contest in the 2021 election, only one president will stand and that will be President Barrow. The eight officials of the group are still answering to three court cases before the High Court in Banjul. Reporting for iAfrican News, I am Aisatu Tamba. Yes, merci beaucoup. Uh, uh, <laughs> Guy, you know, three years, that's not. be pare ñeblare lool nak, wax bo hmm. ah mu ne ko paa am xel mu ne ba ba bi dafa am xel ba bi neena kula wax tries jot na ne ko tries tas na waaw léegi nag est-ce que tri na tries tas na sax moon ñaam wala wala de ah. president bi lool la wax de president bi la neena tas na xama dafa tas xama dafa gént xam nga gént waaw li gént ah li ma li ma ma xaram ah. ma nafaraat ko be aftar rek ok <laughs> am na li ma foog waaw. Um, waaw for the first time publicly muy wax affaire three years jot na. Mm. waaw te mu ngi ko waxee ci rally. Euh, te gis nga nu mu ko waxee euh, xam naa ne moom euh, xaw ma ne ñi naka lañ koy gisee ak tamit ñi nga xamante surtout waa three years jot na yi ak liñ buggoon def nañ fi ñaari rally bu mujj bi moom dafa jaxasoo woon torop waaw. wallaay ba léegi sax ñu bari seen dàllal leer si. ñu ne ba léegi suñu mic bi booy am na mic bi si des bu am ne gis nga loolu yëpp xew na ci. <laughs> anyway <laughs> eh, Gambia anyway um, three years jot na Adama Barrow moom moo wax ne uh, for the first time presidential election na gaa ñu ngi campaign you know for the presidential elections I think um, fii daal ku la nekk ngay support te man I believe ne it's their constitutional right pour ñu def luñ bëgg a def politics la tey dangaa gis kii fii ëllëg nga gis ko fële gannaaw ëllëg nga gisaa ko fële so politics la daal so waaye anyway campagne um, campagne la time election moom doo mun a wax kenn bul campagne ku nekk am na right pour campagne dal moo gën a am solo rek moo nekk nga waaw waaye li ci mooy mooy ñi nga xamante ne nee na ñu ngi doon demande pour moom mu wàcce three years ñoom léegi bàyyi neen three years bi ñu ngay campagne pour 2021. Eh, xanaa yow tamit nag. <laughs> ah <laughs> ah léegi xanaa julli moom dafa bëgg def three years nag. ah déedéet ah three years de man defuma ko party. walla baro ñoom ñoo nekk de pa fam naa baro moo ko def bëgg a def party. parce que as far as we are concerned moom def ko bare moom nee na tas jeex na. kooku moom but Amadou as far as we are concerned. Mm-hmm. three years xam nañ ne is a movement boo xam ne it is hell bent on on sitting uh, president Adama Barrow moom dañ oote ne pour moom mu respect the three years coalition agreement. so moom suñu waxee ne like ñooñu ñu ngi campaign for the 2021 presidential elections. it means ne there are two things involved. it's either sànni nañ seen initial plan bi moo nekk to unseat the president or. Um, guy they have a change of plan or they want to do something different gis nga um, loolu ah, loolu moo moo ñam because lii moom xam naa dañuy dem uh, si newspaper review bi waaye sa si si mbir yi noonu nga ko mën a jàngate parce que yaa fa woon ci lami koro bu koro te gis nga reaction nit ñi ak yooyu waaye su fekkee dañuy taxaw nañ about seven eight nine months ba ten months ñu ngi wax ne benn issue three years three years ñu ñëw ñëpp xam nañ tamit lu leer mooy government bi dañ leen baar waaye public li président bi nee na dafa tas lu tas nas mooy lu existe. non mu ne benn paa moo ko wax. waaw moom ne loolu léegi loolu mooy tontu. ah ba anyway am nga bëtit boobu loolu c'est political meeting la woon. waaw te foofu dafa ut. pexe mu nga xamee ni nii rek mun na see demee moom si kaw wi ñeneen ñoo ñu dem si suuf. waaw waaye waaye nag dégg dégg est-ce nag affaire mu trier est-ce que tasuñ tas nañ moom. non am naa ne dama ne gént na sax xaw ma waaye xaw ma tas na am waaye gént na daal. because everybody knows that nu mu fi menoon menatu ko woon. waaw paa boobu nee na paa bi nag dafa am si nit ñi ñu ñu am xel leen dafa mel ni paa bi wax boobu daf ko nee lu ko paa bi jox xalaat boobu noonu benn benn benn paa moo ko jox. est-ce du leen yee tamit bu tax ñu yëngatuwaat. non fekk sa because nguur la te bànn leen already du fa mun a nekkaat xëy na looloo tax woot bi gën koo ne ne ku la wax three years mooy three years tas te ñoom léegi mu ne seen pexe mooy 2021 Amadou nag mooy di bes foofu rek leen ko mun a xaar léegi te foofu mooy lu ànd ak lu waa xaar ko si on 2021 seems like they have um, um, agreed with Gambia for peace building, five, five years five and years. peace building. ñoo ñu ne ñu xaar leen um, twenty twenty one presidential elections. moo si des te uh, ñeneen sax am na ñu wax ne sa three years bi duñ ko mën a baan because it was never registered in the first place. Mm. so yow loo mën a baan rek moo nekkal lu ñu register waaye lu ñu register uh, loo xam ne dañ ko register wuñ. how will you ban that. waaw ah, loolu kon si def loolu la si teg sa tànk ko. that is Gambia and. kon loolu de kon waaw kon kon ba am na opportunité su ma leen bàyyee moom ah, ah. dañuy continuer rek three years dañ ko taamu ba bu ñu koy wax mun nañ see wax ba programme bi jeex.